Damel Meissa président suñu naataange réew du parti politique pour xam du 2011 qui Sénégal nous xam ko la langue politique gi depuis 2012 euh, Fin nag euh, ci Thiès bu bi élection yi légui defu ñu fi bilan bi euh, c'est parce que tout simplement def nañ ko en interne mais bëggoon nañ tamit toog ba xam lépp fan la sooxee ak lépp fan la baaxee balaa ñu ci mën a wax ak euh, presse bi aussi choisir suñu emploi du temps xam kan la ñuy ci sujet yi nga xam ni ñoom ñooñu gën a euh, soxal euh, dañuy sant ndaxte dugg nañ ci ci jàmm génn si si jàmm waaye nag terewul ni jafe woon na lool ndaxte façon euh, piège bu nekk mën naa ni tegal nañ ñu ko euh, si wàllu carte yi si wàllu élément de propagande yi muy euh, spécimen yi donc dëgg-dëgg élection yoo xam la You metti woon la wante tamit yoo xam ni euh, nañ ci lu bare bare ci politique mën nañu sax ci lañu gën a jàng bi politique ba léegi euh, li nga xam ne nag résultat euh, parti liñ ci am ci voix onze voix donc am nañ ci lu ñaari nit ñoo xam ni votel nañ ñu fii ci réew mi euh, muy loo xam ne si du lu ndaw ci parti boo xam ne mu ngi doog a door ma ci gërëm di ci sant ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci élection yi di leen ci jaajëfal euh, ñoo xam équipe yi nekkoon Thiès la ñoo xam yi nekkoon Kajoor ak yi nekk ci biir Sénégal ndaxte nag euh, Sénégal gi yëpp lañ ñu voteele li nga xam ne am nañ ko ci élection yooyu muy fukki junni ak ñaar euh, balaa ñuy mën a xam nan la toll dañ koy mën a natt ak suñu naatangoo yi nga xam ni demoon nañu ci élection yi ak ñun fii ci cees gi nga xam ni fi lañ ñu gën a xamee ñi ci demoon ci élection yooyu bu weesoo coalition yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy coalition président ak coalition Euh, Khalifa Sall ak Idrissa Seck ñeneen ñi nga xam ne ñëpp amoon nañu ay liste fii ci Thiès euh, ñoo xam ndax dañoo nekkoon ci coalition wala déet ku ci nekk rek lu mu bon bon rewe nañ la ci lu toll ni ci junniy voix fii ci Thiès muy euh, monsieur le maire Talla Sylla rawe nañ jiitoo nañ ko lu toll ci ay junniy voix te dañuy fàttali rek ni ah ñoom ñu ngi ci langue politique gi léegi mu ma 30 ans kon li ñu def kon du lu tuuti ñi ci des tamit noonu bu ñu jëlee biir Sénégal ay professeur am sot Sow Sidibé yaakaar naa ne ñëpp xam nañ leen ministre lañ fi woon euh, ñu ñu fi déglu lañu ñoom it rawe nañ leen euh, lu mu bon bon ay junniy voix ak lu topp kon suñ naataange réew euh, yaakaar naa ni wane na ci élection yi que ni am na lu mu mën ci réew mi te rawatina bi mu dem àndul ak kenn doon nekk ñu woon ci coalition euh, loolu tamit day gën a tax ma gën a jaajëfal euh, dëgg-dëgg euh, suñu équipe gën a jaajëfal tamit sénégalais yi ndaxte sénégalais yi li tax ñu leen di jaajëfal di leen gërëm di leen sant mooy ni dañ ñëw voteel te joxuñ leen xaalis dañ ñëw voteel te digguñu leen loo xam ni fasuñ ko woon yéene def bu ñu xoolee vote yi département Thiès Euh, bu ñu boolee li ñu fi am yépp ak département Tivaouane diggante euh, ñetti junniy voix la euh, ak lu topp kon li ci des yépp muy juróom ñenti junniy voix yi ci topp waa Sénégal ñoo ñu ko jox waa Casamance waa Tamba waa Dakar waa Diourbel waa Kaolack wala feneen yaakaar naa ni loolu néew na ci politicien nga dëkk ci gox euh, ba pare nga am ay voix yoo xam ni ci yeneen gox yi takku nañu loolu jafe na firnde ne naataange du parti Bo xam ni waa Thiès kese ñoo koy jàppale du waa Kadior kese ñoo koy jàppale waa Sénégal ñoo dégg li ñuy wax muy xeex ger xeex euh, ndóol xeex tappale beeg caaxaan bi ci réew mi ah, jàppale xale yi ci seen xëy ak ak yeneen yi yeneen te ñu gis ni 2012 euh, ba léegi euh, li ñu ciy wax euh, soppeekuñ ci kon yaakaar naa ni loolu waral na tax Sénégal yi voteel ñu te dañ ciy dolli ni ci bilan bi dafa am lu am solo loo xam ni xew na biir Kajoor parce que li ñu fa campagne yépp wax nañ ko ci biir Kajoor yépp ni leen depuis vingt ans amu leen ministre boo xam ni bokk na ci gouvernement ca maam bu ma sàll la loolu am Kajoor kon vingt ans bu dee amoo ci ministre mooy que ni mën nañ ni bokkoo ci Sénégal euh, kooku penc mu ñu toog Kajoor wax nañ ko fa kon bu élection yi passé euh, ñu nommé Tivaouane ministre nommé euh, diggante Pekes ak Kër Ale ministre wala même ñaari ministre donc yaakaar naa ni mel na ni li ñu doon wax ci campagne bi président de la République dégg na ko ba Kajoor en tout cas ñoom it tànk yi boole nañ leen ci Cees gi ñu dëkkit bu ñu sañoon ñu boole leen ci ndombo tànk yi boole leen ci gouvernement bi ba jeunesse thiessoise bi mën cee gën a gis boppam ni ma koy faral di waxee ci yeneen média ni ma ko faral di waxee depuis 2012 tamit ni nga xam ni moom lañ ñu yare te noonu lañ bëgg a doxale ci wàllu politique ñun duñu ñoo xam ni dañuy wor wor mooy ànd ak nit te di def ci ginnaawam di liggéey loo xam ni yëgu ko di ko làqatu te li ngay def yépp leer na la ni danga koy def ngir yàqal ko kon ñun euh, wor bokkul ci li nga xam ni jàpp nañ ni dafa am ci politique euh, kon waa Sénégal mosuñ ma dégg

équilibre yi nga xam ne moom la ñu soxla woon concertation bi nga xam ne moom la ñu soxla woon amuñu ko donc là tamit ñu jël suñu responsabilité porter li nga xam ne moom mooy discours suñu naataange réew mooy discours boo xam ni tiituñu porter ko ndaxte def na ñaari tournée ci réew mi fii ba Casamance fii ba Tamba fii ba euh, Sédhiou fii ba Simbani Balante euh, Sénégal euh, tey jii foofu yëpp am nañ fa ay représentant kon ñun suñu discours tiituñu ko yóbbu ci askan wi kon tiituñu ko yóbbu ci ay wàllu euh, élection euh, loolu di wax rek ni ay nit suñu àndee dañuy yëgoo donc dañuy yëgoo te tamit dañuy yéenente

Euh, kayit googu kañ la ñu tënkoon ci élection 2012 yi kon 2019 dafay nekk loo xam ne si lu bees tàq la kon beneen waxtaan la laaj waxtaan woo xam ni euh, suñ ci gisee loo xam si jëmale na jeunesse thiessoise ci kanam waxtaan woowu dina mën a antu buñ ci gisee loo xam ni na jeunesse kayorienne

bu ñuy delluwaat di wax ak président ngir 2019 euh, buñ ci gisee ni ma ko wax si njalbeen nga euh, loo xam ne si jàppale na réew mi dañuy président mais buñ ñëwee waxtaanaat su waxtaan woowu amee euh, gisuñu ci luy jëmale Sénégal kanam dinañu am sañ-sañ ni ñun bii pa jàppale wuñ président de la république loolu mooy position suñu naataange réew politique la ñetti yef ñoo mën am ànd ak président mi nga xam ni euh, moom lañ signé loon protocole d'accord ànd ak beneen coalition wala ñu ànd ñun rek donc ñetti hypothèse yëpp amul benn boo xam si dàq nañ ko ci ndaxte amul euh, lenn loo xam ni fi ñu toll moom moo tënk suñu naataangi réew mën naa ni lu weesu liggéeyal askan wi defaral sénégalais li nga xam ne moom gën ci ñoom